bu la doon laaj tey kan mooy Père Balla Gaye. waaw Père Balla Gaye moom parce que ñëpp xam nañ ko si Sénégal nag mhm. euh, def na lu mu war a def yëpp quoi mais àddina moom loo gis moom day jeex rek quoi waaye kookoy Père Balla ñoo bokk ndey ak baay quoi. Mhm. tey euh, yow yi nga xam ne yow yow la bokkal ndey ak yow mi juddandoo moom màggandoo ak moom tey bañ leen wax ay jikko. mooy Balla nit ku baax la woon rek ku yaatu woon quoi ñu bare jaar nañ si moom loolu moom ñëpp xam nañ ko ko bu muy créer école pour dimbali nit ñi la encore quoi ku si nekk boo mënee nga jariñ sa bopp jariñ say mbokk ko noonu la def ku baaxoon la daal ku yaatu woon la man nag maa dëkk Mbour ko oui ñoo bokk la Pathé Ndour. Ah, ñoo bokk ndey ak baay ah. maa topp si moom. waaye kii moo ko juróon bokk moo moo ko amoon bokk Ousmane Ndiaye. fay naa leen. Hmm. tey per Balla dem waaw dem na muy dem dem bu metti sax. bu tiis sax bu doy waar waaye nag dee la. buntu kër gu ne dina ko fëgg waaye jàmbaar daanu na li tax ma wax la loolu mooy bala ba mu tekkee ngemb dafa dëddu àdduna bisam bii nii la ko doon ñaane boo ko mos wax dee dinaa la ah bu dee tey muy noonu ku jeexal dem kon ba mu jeexee la dem na yal na ko yàlla xare àjjana jàmbaar daanu na nit ku baax. ba muy bëree man la Alioune Seye Daouda Fall ñoom ma soose ñoom Daouda Fall ñoom Seyna jaañ xal yu bëri xamuñu Seyna jaañ kii rakkam la ñoo bokk ndey bàyyi lu may wax xam na ci dara ma jël ko woon loolu bañ na ko man la bàyyiloon doomam bu ma war a maye samedi bii di ñëw kon bu demee man la demal dem na ci nag bis bu rafet ñi di ko fii ci Cambérène sëriñam tamit woo ko ne indil leen ma ko kon day na xal kon xel eh, waaw waaw ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, ci borom bi la jóge woon ci borom bi la dellu yàlla na dajeeg yërmande borom bi parce que alaxira moom yaakaar yaa njëgalu borom rek fa am yàlla na dajeeg njëgalu bi waaw. ko ñu doon wax ci Balla kan mooy Balla. waaw am na lu ma xam ci moom nag mais xaw ma léppam parce que dañoo foondoo màggandoo maaseendoo carrière bëreendoo carrière bëreendoo mbappat bëreendoo arène man mi wax yow daje na maa moom ñaari yoon arène. mu doon sama nit ñu seq jàmm di kaf di mu doon liggéey sax sama booru kër dama daan toog bu ngoon jotee ma ñëw jël si ko ah, bu añ jotee ay bu ma toogee ba ma entraîné yi ba ay 9 heures ay 10 heures yooyu ma jaar atelier fi mu daan yig liggéey foofu ci benn ma ne ko Balla kaa ñoo ñu kër ga bu nekk fii di jënd ay plate ak naanga maa ma non sax ma ne ko xoolal lamb lamb la bu lamb jotee ñu bëri mais bu lamb jeex ay gaayen la ñu waaw sama waay la woon ñu seqoon jàmm lool nag wax dëgg yàlla loolu laa xamaloon daal ñu seqoon nañ jàmm nit la woon koo xam ne adversaire la woon mais du woon ennemi nag parce que man du ma dundee noonu man du ma dundee adversaire jël ko def ko noonu déedéet damay xam ne lamba ñu boole bu lamba ji jeexee rek jeex na tey ji ana mu jeex na te jeexoon na bu yàgg ba mu jeex sax tey ñun ba jeexalee ci làmb jeexal na wax rek a ñu ci dese wax boobu nag nay rafet tey dëggu loolu rek ci am solo waaw. jërëjëf Ndiaye. Mm. waaw. Abdou Diouf ñoo ngi lay ziar. waa buur ñu ngi lay delloo ziar. la jaale koo xam ni papa la ci yow mën nañ ko wax. Hmm. waaw bon ginnaaw ñu ngi sant yàlla di julli journée bi sant suñu ñaari waajur di jaale Balla Gaye euh, di ko jaale ñëpp parce que vraiment Balla Gaye suma suma pap suma papa la suma suma lépp la suma xarit la parce que bi may door ci làmb boobu jamono yooyu sol blouson gars yi dana jaral nit ñi lu ne. moom mu ñëw ni ma ñu lu ñu wax mun leen Abdou Diouf mi mooy mbër mi yëkkati na blouson ñu jox ko blouson mu yëkkati jox ma ko li ma la wax nii ëpp na vingt ans xam nga kon bu génnee àdduna tey vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, fi mu jëm nii gënal ko euh, fi mu jóge waaw ñu ngi koy ñaanal daal di ko jaale ñëpp waaw xam ni metti na waaw mais waa ñu ngi ñu ngi koy ñaanal. tey boo doon fàttaliku benn bés boo jaar ak moom te muy des saa su ne ci sa mémoire. waaw Balla fi may jaar moom dafa bëri parce que Balla ñun écrit waalo la woon te écrit waalo vraiment moo juute école bi te man la woon ak moom waaw am na combat yoo xam ne dama ko cee gunge du dëgg kon vraiment euh, dafa maa marqué ci lu bari waaw dafa maa marqué ci lu ba muy sos écrit bi sax boobu bi muy sos école bi sax naan toog chaque jour mu ñëw si man ni ma Abdou yaa mag xale yi ñëwal nga cëral leen jëmmal leen waaw ñëwal waaw Balla daal vraiment euh, ñu ngi koy jàll ñëpp xam ni metti na lool metti na lool waaw. ñuy wax naan nit ku nit ku ñeme dëgg la ba saa su daan wax même ci télé wala ci rajo bi da ngay sentir nit ku am franc parler la. waaw Balla moom vraiment moom te xama rek moom yàlla def ni làmmiñ bi moo am barke moom su la meree si làmb sax la prépare pour nga am nam du yomb waaw moo tax euh, vraiment moom xam nga dañ ko daan. waaw man sama papa sama papa la suma xarit la parce que doomu Moussaane ak suma doomu Moussaane euh, tuddee na suma suma rakk doom kon vraiment ñun xama waaw te daal vraiment ñi ngi koy ñi ngi koy ñaanal bu baax waaw métti na trop nag waaw. jërëjëf làmb ñoo ñàkk rawatina waa Géejawaay rawatina ñun ñi nga xam ne moo ñu tàggat ci lépp daal. tey ba ñu doon wax kan mooy Baye Balla. non Baye Balla daal li ma la mën a wax ci moom bari na nit la woon ku baax ku ñu doon ñaax tey jii mën naan nuñ mel rek moom la ndax daf ñu doon yokk jom ndax ay waxam soo ko déggee danga nga naan dalay xas mais xasu la mais dalay yokk jom su dee bañkan nga li ma la mën a xamal daal buur ñun ñàkk nañ ñàkk nañ bu waaw. jërëjëf rek. beneen beneen message nag naa ko fàttali. autorité yi géejawaay yi. Balla Baye lu mu séq ak ay mbërëm rek defal nañ ko ko mu si Balla Gaye 2 Less 2 ñëpp taxaw nañ ko si feebar mais autorité géejawaay yi nañuy fekk mag ñi suñ feebaree ba ñuy wér dañ leen doon toog di leen sonnal di leen waxal mais suñ demee ba feebar buñ di seetaan nañuy jóg quoi di jàpp dafa mel ni que dafa mel ni que ci feebar bi euh, da jotoon ngeen sàkku ci ay autorités pour ñu dimbali ko parce bi ma déggee cri kër boobu la Lamine def tey suba. waaw parce que waaw mooy parce que mooy loolu ndax tey ñëpp mën nañ xam tey kee def na ci lim mën. Balla Gaye Balla Gaye les def na si lim mën ñëpp def nañ bàyyi Balla Gaye mën naa ne tey ji bi ñuy mujjee li feebaru Père Balla man moom Youssou Ndour xam nañ su kenn xamul mais yooyu yëpp tamit dëgg la mais autorités yi nañ xoolaat quoi. xam ne na amu solo buñ waaye bi des des na lu bëree bu buñ xool ni ñu siiw ñu rek la ñuy mën di dimbali nañuy dimbali ñi nga xam ne mënoon nañ dem ba mënatul tamit loolu am na solo man loolu laay message message boobu laay lancé autorité Guédiawaye yi. jërëjëf la jërëjëf buur. mais alors nuyu naa waaye buur maa ngi nii maa ngi si jàmm baax. la jaare Père Balla. waaw waaw waaw waaw na trop métti na trop waaw ñu ngi sant yàlla di jul seen tam sant suñu ñaari waajur moom affaire bi moom métti na trop sànq laa ko yëg quoi la lan ma envoyé affaire yi gaal daf ma tiis trop trop sax waaw daf na ma tiis trop métti na trop métti na mett na boo xam ne daal buur pour ñu wax wax ju sori nii dina xaw a doy waat trop wax dëgg yàlla comme ni ko Omar waxee rek mett na trop dañuy ñaan yàlla yàlla xaree ko àjjana suuf oyof si kawam daal di ko ja di ko jàll yow tamit yow ku baax nga ba Serigne Babacar Sy maa ngi lay bégee bu baax sa xari yi nag après dinañ ci wax. incha allah jërëjëf ñoo far. ça va maa ngi tey nga ñàkk un ami un frère. koo xam ne yàgg nga ak moom. waaw waaw sama sama mag moo ma waaw ñu bokkoon koñ eh, muy ànd sama nijaay benn jour mu ñëw sama kër Fadiane ma Moussa man école laa bëgg maa ko école maa maa ko accu nañ toppatoo kër yi se nañ toppatoo kër yi mu ñëwaat kër kër gi na ma nag léegi kenn dooyu ma si yow yaa ma si doy ñëwal tee ma sama école bi jëlal ma Omar yóbbul ma kër ga ñu xool daal la ñuy def soit danañu am roi des arènes te du yàgg ma ne ko alhamdulilah waaw loolu gis naa ko parce que loolu six ans la man rek juste euh, Omar Diallo jël roi des arènes. ci bi ko feer bi daal ay dernier instant am kañ nga mujjee gisee moom. non al gën naa ko gis tuuti mais al joma si guddi ñu ngi wax te man léegi dëkkatuma géej waaye maa ngi dëkkee côté Sicap Foire. ce qui fait que ñëw bi du bëri noonu danaa dañuy jéggante nag à tout le moment. mais barki dem si guddi rek ñuy waxtaan sax ba ma daal ko man dama demoon Linguère mais dimanche dinaa ñëw boo ñëwee dimanche lundi dinaa ñëw seet si la muy façon booy itam jàpp na si nag booy nag may woo di si jàpp si feebar bi mais lu yàlla dogal rek dogal na ko di ko ñaanal yàlla xare ko aljanna waaw. jërëjëf président merci beaucoup.